xëy nag wax ci yéen kaay gii di Vox Populi moom Macky Sall nee na képp koo xamante ni jàpp nga ne assemblée nationale mën naa bloquer fonctionnement état yaa ngi juum wala xamoo état ndax man njiitu réew mi samay pouvoir samay sañ-saña maanaam dafa dépendre lu ci assemblée nationale maanaam du jóge ci assemblée nationale moom Macky Sall ci yéen kaay gii di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu nag gouvernement bu yees bi Macky Sall est-ce que jox na cër allié yi ndax nag gouvernement bi lu toll ci fanweer la ak juróom-ñetti ministre ministre yëpp maanaam ci APR la ñu bokk Macky Sall dafa sédd waa APR ba xolum sedda yéen a kaay gii di Direct News nag nee na rébellion moo am ci biir ndax mer mi ma ngi mel ni tulleeg male ginnaaw nag Aminata Tall déggoon ngeen fi Aminata Tall waaye nag Mimi Touré mi nga xam ne barki Dembo Ndiaye dafa gedd ci biir assemblée nationale ak Mankeur Ndiaye mi nga xam ne moom tim ñëpp nag xam nañ ne dafa mere Macky Sall journal bi ne ñii ak ñeneen ñi nga yéenekaay gi di Direct News nee na nag bu passé frustration bi am ci biir APR jafe-jafe yi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund ma ne la loolee dafa jàmp ngir nag Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom Amadou Ba daal koy lijjanti ci ni mu gën a gaawee yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu Aminata suba dina wax suba ci dimanche Aminata Touré nag mbaadu dafay dem ci opposition bi loolee ab laaj la yéenekaay gi de la Aminata Touré moom candidat na Aminata Touré sax daat nay commencé nag jéem a lijjanti ay parrainage teel na mi mimi nag yotti ma yéen a kaay gi di source a xëy di ñu xibaar naan ñoo Aminata Touré mën a la taxawal na mouvement mouvement pour l'intégrité le mérite et l'indépendance nga boole ko mu jox la mimi yéen a kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas parti socialiste daat nay yëngu ndax bay Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye ñaar ñii kenn ku nekk dafa bëgg a ngar daajoo li nga xam ne mooy parti socialiste ab ñoom socialiste yi danañu ko amal waaye nag soo moytuwulee dana tàng jër tàng ministre Serigne Mbaye mi ñu jëlee ci parti socialiste dugalaat ko ci gouvernement bi ñu baree bari ci biir PS dañu ko contesté maanaam ànduñu ci neexule na yéen i kaay gi di Vox Populi xëy xibaar naan ñu AIBD aéroport maanaam yëngu na ndax ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ne ma contrôleur yi seen grève bi andil nay jafe-jafe yi nga xam ne kilifa yi ma la problème am na kilifa yi dañoo mujjee sax nag bëgg a jël militaires yi ak élèves yi nga xamante ne nag ñooy jàng ci lu jëm ci ab girawa journal bi nee na mën a la gis nga collision avion mën naa am mën a la ay avion yu mbëkkante loolee ci risque yi la bokk waaye tamit ay vol yu baree bari yoo xam ne daan nañu koy annulé yéen kaay gii di l'info nee na démb ay négociation am na seen diggante ak ministre bu bees bi ne mu dudu ka yéen kaay gi du source passation de service Aly Ngouille Ndiaye Moussa Baldé ministère de l'agriculture Aly Ngouille Ndiaye nee na liggéeykat yi seeni salaire danañu ko xoolaata yéen kaay gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Fatick dañoo sonn ba maara day taali ma la maa ko wax ba léegi am na ñoo xam ne ñoo ngi ci biir ndox mi ma ne la gis nga Fatick am na kër yoo xam ne ba léegi ñoo ngi ci biir ndox mi waaye nag nguur gi ñoom nee nañu danañu yokk jéego yii ngir nag jàppale askan wi xeetali le na yéen kay gi te enquête l'observateur ne na ñaar fukki at ginnaaw suuxu batalo Joola ba léegi naqar ak tiis ay diggante yoo xam ne ba léegi France daal di xëdd na yéen kay gi de l'observateur inna lillahi wa inna ilayhi raji'un journaliste Soro Diop daal nay génn àdduna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma ne la ci accident ci ambiance bi yéen a kaay gi de la sax xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum soldat ivoirien yi nga xam ne ñoom la ñu téye Mali loolee nag daat nay taxa ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ñoom ñoo ngi nag teg pression Mali waaye nag di teg pression Guinée Conakry ma ne la CEDEAO jamono ji pression bu métti métti la ñu teg militaire yi nga xam ne jamono ji ñoo yor réew Mali ak militaire yi nga xam ne jamono ji ñoo yor réewum Guinée Conakry ngir nag ñu jël réew ma daal di koy yóbbu